dañ di ay taalibe rek tey wéye ndigal bis bi da ko da koo woote woo ci taalibe yi murid yi ñun ñu bokk ñuy kenn ñuy kenn ci ci ay ay dongoom yoo xam ne buñ ñu wooye woon bu suñu bakkan yi sax bu ko bu ko soxla woon buñ ko woo ñu ñëw jëbal ko kon nag bu ñu woo ci loo xam ne ak cant la ak ak ak ak ak ak bernde dañ ko ci dañ ko ci dañ ko ci wus suñu nag suñu liggéey ci wàllu collation mooy euh, collation moom boo ko déggee mooy ñi nga xam ne ñooy séddale ñooy taxawul lu jëm ci wàllu naan gi ci lu tàng jëm ci lu sedd kon ci loolu rek lañ nekk ci fan yi yëpp ñu ci liggéey boobu ba léegi tey nag ñu ngi ci ci bis bi ci digg bis bi bi ñu xëyee euh, taxaw nañ li jëm ci wàllu ndekki yi fi mu toll nii ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi lijjante li war a ànd ak li war a ànd ak añ bi mooy mooy mooy ah, lu lu lu lu seddali collation beeg ak ak yeneen xeet yu ak boisson yeeg ndox meeg lépp rek lépp loo xamante ne dina yëwénal bis bi daal ci loolu ci loolu la nekk di ko taxaw lépp lépp yemb na ndax ndax lépp yemb na ndax bis bi moom ba mu ko jëlee teg ko ci loxo suñu jëru sëñ sëñ Youssou Diop euh, dañ ko ànd ak euh, mbooloo mi nga xam ne sëñ sëñ Amsadou Mbacke mu sëñ son yi moo leen moo moo leen moo leen moo leen jiite ñoom it ñu ñu ñu ànd ak ñoom liggéey bu rafet ak euh, yeneen i kuréel mën naa ci mën naa ci lim rek ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee so waa ëhlu ëhlu café ñoom ñoo ñoo nekk nii ñooy ñooy bleu jaune jaune bleu yi ñoom ñuy ay jàmbaar lool ñoom it jàpp liñ ci liggéey bu baax a baax ñoo ko ànd boobu léegi daal dara dara dara dara dara manqué wul lépp lépp lépp daal xéwali na lépp kawe na suñu njort lool lool lool fu ne it murid yi ñu ngi fay jëf di togg di indi di defar café di indi di indi ay boisson di indi ndox lépp daal xéwal gi daal kawe na njort lool lool lool lool amiltu dikran jaani min rabbi walil jinaani qaadani bil hubbi qabiltu dikran jaani min rabbi walil jinaani qaadali bil hubbi barakatul qur'aani wax murid wax kafe ndax suñu tubaab dana murid bi jàng naan kafe bu la nattable ne murid saadix kon murid mooy mooy mooy mooy mooy Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa nee mooy man lu waaye wax murid rek mën nga ko wax te eh, Sëriñ Tuubaa nee na kafe daa bokk ci man dem na ba wax ne sama deret la kon kafe moom leneen la moom moo moo xasida daa bokk ci bagage ci Cheikh Ahmadou Bamba tey nag bis bi njàngat bi ñu ci def mooy wuy si ndigalal si ki ñu yaakaar ñun gëmuñu ku dul sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nag mooy Cheikh Mamadou Mountakha moo ñu woo ñu wuy si ko ngir jàngal ko xes day sëñ Tuubaa yi ku gis mbooloo mi tew fii nga xam ne murid yi sëñ Tuubaa rek lañ bëgg tey nag taxawaay Ahlu kafe mooy fexe ba tey murid bu fi tew luy bernde rek ñu ñu amal la ko muy kafe di ataaya di xeeti collation yi nga xam ne ay xeet yu sell lu mën a doon rek ñu fexe ba mépp murit boo xam ne teew nga rek ñu ñu ñu amal la ko dèjà def nañ première partie bi muy ndékki li depuis ca fajar ba 11h ñu ngi joxe pare nañ suñu toll nii li des mooy bëccëg gi wàllum attaaye xeetu was yi su loolu jàllee kafe ngoon gi ñëw kon liggéey bi moom noonu lañ ko programme nga xam ne tawfeex ji jiñ ci amal mooy ndigal li ñu wuy si ndax am murit kat bu bu wuy see ndigal moom ndax xam ne lu lu taxaw ci kanam ba amee gëm-gëm gi day jaar ci kawam day jaar ci kawam jàll.